salaamaaleykum mbokk yi ñu am mbégte di sant buur yàlla borom asamaan suuf di kaat fii seen jataay Sénégal ca kanam Sénégal ca kanam wala suñu réew mi ni ñu koy xalaatalee xool yi ko gàllankoor si fànn yëpp jëmale ni saafara ngi réew mi suqali ko réew mi taxaw réew mi yegg ñu ñëpp ñu bëgg mu yegg Sénégal réew la moo xam suñu borom borom asamaan suuf da koo beral loxo ndax ñu dara manqué wuñ te dara jombuñ lépp lu doomu aadama aajowoo si kaw suuf ngir jëm kanam suñu borom def na ko fi muy géej di ay dex ay déeg su su nangu su borom defal ñu koom yi ci biir suuf si koom yi ci biir ndox mi su borom defal ñu li ëpp solo mooy ay nit yu am xel xel rek koom la saa ñu jëlee xelam daas ko nàmm ko bés ko sotti ko xelli ko nasal ko xel moom da ko jural yiw yoo xam ne njottam mëne si woon yegg sax lu tax ñun Sénégal nag ñoom am xéewal yëpp waaye ba léegi suñu réew mi ñun béggaguñu si béggaguñu si dëkkuwaay dama ko ñëw mbay napp sàmm wér gu yaram jàng jàngale wàllum liggéey wàllum mag ñi ndaw ñi góor ñi jigéen ñi wàllum jikko wàllum mbedd yi loolu yëpp ñun tey béyaguñ si lan mooy saafara si saa su ne dañuy ami gan yoo xam dañu fiy dikk ngir loolu ñu indi si ay leeral tey ñu ngi si ànd ak euh, soxna si di Maymuna Jeeju Maymuna Jeeju moom euh, mi ngi bokk si kuréel goo xam ni ay ndaw lañ dañuy jàng waaye daal suwel ñoom moom la ñu fas yéene euh, mu suqaliku dañu leeral léegi loolu lu mu doon ànd tamit ak Lamine Touré Lamine Touré moom. Euh, fële soppi jikko ca Sicap Mbao Lamine Touré moom moo fa nekk di ko euh, di ko doxal Maymuna la nuyu la dalal la ziar Lamine la nuyu la euh, maa ngi lay fay Tunkara di la remercier vraiment ci invitation. Ah, yow ñoo bokk ñoo bokk mbuus <laughs> Maymuna yow leeral ñu Suel lu mu doon. en fait Tunkara comme ni ma la waxoon fii maa ngi lay nuyu di la gërëm di la remercier ci invitation bi. Euh, ginnaaw bu ma sante yàlla maa ngi nuyu sama ñaari waajur yi. ah mais xanaa mbër nga. Euh, <laughs> ma <laughs> maa ngi maa ngi nuyu ñëpp xamante ne ñu may xool à travers cet euh, écran la 2STV tey sama ñëw r 2STV mooy lan yàgg nañ di ko di ko topp parce que si je me rappelle bien 2013 2014 moom bu ñu daan def remise de prix moom moo ko daan médiatiser. Euh, à travers waaw euh, voilà 2S à travers. Cissé waaw léegi seen amicale bi lan la. voilà suñu amicale bi mooy ay ay nit ñoo ko bu ñu amee seen bac ñoo fi Dakar ñu xool euh, les difficultés ñuy rencontrer université ñu ne il faut ñu wootante toog. ñëw Dakar jóge fan. ci village mooy Suel. Suel fu mu ne. voilà Suel mu ngi tëkk dans la région de Ziguinchor département de Bignona hmm. chef-lieu de commune. Hmm. auparavant il était il un comment dirais communautaire yi la mais avec la décentralisation. ñaata nit ñoo fay yeewoo. Suel ñaata nit euh, la bi def na onze millions neuf cent trente et onze millions. mën a jéeju seetaanal nekk benn. voilà. Euh, yow Suel nga juddoo. Suel laa juddoo fa laa màggee. Hmm, fa laa jàngee ah. <laughs> léegi euh, étudiants yi nekk fii ak élèves yu jóge Suel nekk Ndakaaru ñaata lañ. Euh, bëri nañu plus de centaine. waaw mënuma la mënuma la wax exactement parce que chaque année étudiants les nouveaux bacheliers dañuy yokk et des sympathisants. mais yéen seen amicale bi ñaata ngeen. suñu amicale bi moom euh, ren bi am nañu deux cent quarante étudiants. Hmm. ñaari ñaari téeméer ak ñeent fukk. léegi yéen euh, si loo leen di lu leen tax a jóg. lu ñu tax a jóg mooy lan ñun suñu activité yi mooy lan on fait chaque année on fait des caravanes pédagogiques pour remise de prix. pour motiver nos, nos, nos, nos petits frères qui ont village de persévérer dans les jetis. Mmh. Euh, à tra en dehors de ça aussi dañuy yëngu lu xamante ne pour aider entre nous ici parce que la université est tellement difficile. yow looy jàng. man <laughs> droit laa doon def. bàyyi nga. bàyyi naa maa ngi def formation. Hmm. en banque assurance finance. léegi euh, Suel kan lañu xam si réew mi koo xam ni euh, fees na ku dëkk Suel. Suel ku ñu xam fii mun naa bëri na. comme kan. comme Yankuba Sagna parce que bokk na ci arrondissement de Suel. ku Yankuba Sagna. Yankuba Sagna c' est le maire de la commune de Sindian il est au ministère de l' éducation il est en conseil en planification. conseil en planification non kooku kenn xamu ko. mais am ngeen keneen ku ñu xam keneen kan. keneen comme y' a docteur Diedhiou Djiwa autant pour moi. dafa docteur la rek docteur la lu muy fay lu bëri ku feebar rek boo ñëwee ci moom lool. mais kon Suwel daal amul kenn ku fa tekki dara loo xam ni tey si réew mi est-ce que mos na am ministre bu dëkk Suwel wala wala yooyu. non non. Hmm. foofu am na ndox. am nañ ndox. ndox robine bu baax. ndox robinet la. waaw du forage. am nañ forage am nañ ndox robinet. mais est-ce seen kër forage ndox mi dafay ñëw ba foofu si robinet bi. waaw bu baax dañuy ubbi robinet bi rek. dañuy ubbi toilette sax boo bëggee toilette lu mu si ut ay may mun a jéej léegi kii nag lampe nag am ngeen lampe tamit Suède. am nañ courant. Hmm. Mhm. kon Suède yéen yéen na mu leen am na tali bu ñëw foofu. non am nañ tànni mais tànni bi c'est pas euh, xamante ne c'est bitume. rang la. waaw voilà rang-rang la. Suède foofu dund bi foofu nu mu mel. dund bi car macha allah baax na. Hmm. parce lépp lu ñuy nekk si si la lépp lu ñuy lekk si naturel. yéen foofu da ngeen di dem rek witt rek ñëw rek. lekk merci ceeb bi yaa leen koy bay ak. Euh, gerte ay ñebe. ñebe ay mbokk. Hmm. sori ngeen Kaparan. Kaparan 4 kilomètres de Suel. gis nga euh, Kaparan fait partie de la commune de Suel. aywa Kaparan foofu ñoom moom samay waa kër fu nekk Lamine Touré euh, liggéey bi naka mu waa soppi jiko waaw ñu ngi fa di di jéem rek. waaw yéen de moom li ngeen ne nag dafa solo parce que. <laughs> jéem euh, fekk ñoo xam ne seeni maanaam xam nga te ñu xam nga Sénégal Lamine lu tax euh, dinga ko leeral léegi li ngeen di yëngu am solo mooy Sénégal ñun suñu réew dafa xaw a ñàkk yërmande Lamine ñàkk li may woowee ñàkk yërmande mooy ñun koo xam ni danga nga wàcc yoon walla nga néew doole société bi li mu paree li mu la pareel dafa bëriwul daal te yéen da ngeen nekk si waar bu am solo leeral ko Lamine. jërëjëf Tunkara maa ngi lay nuyuwaat bu baax. di nuyu mbokku téléspectateurs yi ñuy seetaan yëpp ni am euh, mbégte ñëwaat tey ci émission bi euh, pour euh, vraiment waxtaan leeral li nga xamante ne bi ci la ñuy yëngatu ak mbébét yi nga xamante ne bi moom la ñu am ak li nga xam ne moom la ñuy def jéego yu ñu ci fas yéene teg pour jëmale ko ci kanam. léegi soppi jiko moom mi ngi ne fii Sicap Mbao. waaw ñu ngi Sicap Mbao. Mm-hmm. xam nga soppi jiko dafa nekk benn centre maanaam kër boo xam ni dañu fay dalal. di gunge di taxawu ñi nga xamante ne bii dañoo am jafe-jafe boo xam ne mu ngi jóge ci wàllu sineebar. wàllum drogue wàllum drogue xam nga drogue ku mu dem ba jàpp la ba nga dem ba nekk loolu ñu tuddee dépendant. Hmm. Euh, bu ñu la seetaanee euh, amaana boo deful nànk da ngay nekk un exclu. te ñun nag ñun suñu société lay seetaan. te loolu dafa nekk loo xam ne warul. ah loolu moo fi am. parce que xam nga drogue dañuy wax. Euh, nii ki nga xam ni dafa am trois types d'usagers de drogue am na koo xam ni mooy ki ñuy tuddee un usager récréatif maanaam kooku occasionnel la hmm, maanaam bon voilà mais xam nga bu commencé bay dem nag hmm. di jëlal boppam di toog kooku volonté bi moo fi nekk moo koy bëgg di ko jël mais dafay dem nag ba tollu étape boo xam ni dootul moom bëgg-bëggam mais dafay obligé maanaam moom dafa mënatul nekk tànk jëlul drogue alors situation boobu nag nit ki bu demee ba toll foofu kooku dafay soxla wax dëgg yàlla ñu jàppale ko taxawu ko. ne nag suñu société vraiment lu ñu pare parce que ñun lamit gis nga euh, dafa am ñoo xam ne tey ñu bëri. comme li ngay wax exclusion dal na leen. te mënoon nañ leen récupérer su fekkoon teg nañ ay mécanismes yoo xam ne. dañuy mën a détecter ne attention kii de mi ngi waaj a dévier. Mhm. ñu jéem a fexe tegaat ko euh, drogue bi. ak tamit ñi nga xam ni seen xel dafa neexul ñun dañuy commencé naan dafa reew mhm. dafa réew dafa mhm. réew ba kooku jékki-jékki. tëppale te bu amoon mais soppi ji ko fàttu ñu leen euh, ñi ngeen nan ngeen di jàppalee ñi nga xam ni dañ dem ba drogue sonal leen. waaw kañ euh, xam nga li ngay wax Tunkara dafa dafa dëggu am solo dafay mel ni yow liggéey bi da nga nekk ci këru liggéey bi te effectivement ñëpp nii la ñu war di xalaatee parce que aussi nit boo ko jëlee nit rek la. quelque que nu mu munti doon nit la comme yow xëy na natt moom moo ko dal mu am ci situation bu mu nekk te kooku dafa nekk suñu ñoñ nekk suñu biir. nee naa koo gis ci mbedd bi muy dox. di oh. dem di taxawaal. Oh. am na koo xam ne bu ko rombee da koy daw. am na koo xam ne bu ko rombee day sëgg du bëgg nit ñi xam ne ñoom ñaar bokk nañ <laughs> parce que nit koo gis rek ci kër la jóge nit koo gis rek am na ay mbokk alors loolu moo tax suñuy biir kër. léegi mbiru drogue dafa toll foo xamante ne bii dootul loo xam ne dañ koy. xumtoo dañ ko nëpp nëppal parce que mbir mi dafa toll foo xamante ne bii dafa jéggi dayoo. foo ko nattee weesu na fa. parce que drogue dafay poser non seulement problème de santé. sécurité. mais problème bu sécurité insécurité dëggantaan tey bu ñu koy wax. drogue moo nekk ci ci ci digg bi. wér nga wax. véritablement ceci fait que. dañu war a jël ay jéego. jël ay am ngeen ay statistiques fu mu toll nii si usagers yi dépendants yi ak gis nga nag bu ñuy wax dëgg gis nga suñu suñu euh, dëkk bi foofu la ñu sooxee dëgg dëgg dëggantaan sa à dire que liggéey bi ñuy def yëpp li ñu gën a manqué mooy am ay données yu hmm. fiable yu wóor yoo xam ne mën nañ ci sukkandiku. pour mën a indi ay saafara yoo xamante ni dina tax hmm. jafe-jafe yi ñu mun leen du ministère de la santé du waa action sociale alors li nga xam ne moo amagum depuis boobu ba tey muy depuis 2011 enquêtes yi nga xam ne def nañ ko fii enquête yi actuelles mooy yi nga xam ne 2011 lañ ko def muy usager de drogue au Sénégal UTSEN enquêtes yooyu bi ñu ko defee ba pare moom moo indi la construction du CEPIAT muy le centre de prise en charge intégrée des usagers de drogue des des, des addictions excusez-moi et des drogues bi nga xam ne moo nekk biir hôpital Fann mais enquêtes yooyu aussi moo tax ñu commencé di def ay activité de réduction des risques di jéem a fekk ñi nga xamante ni bii dañuy jël drogue injectable yi di leen jàppale pour que seen mode de consommation boobu bu mu leen indil yenn xeetu feebar yi. yu mel ni ay sida. wala certaines maladies virale comme hépatite B ak hépatite C. parce que kii seringue yi boo koy paasante. waaw njaaxum bu ne mën na si jàll. mais enquête yooyu dafa am lu mu wanee lu am solo. li mu wane mooy que la consommation de la drogue au Sénégal c'est une réalité dafa am. Mhm. surtout nag yenn drogue yi nga xam ni ñun dañ ko daan tàmm rek di gis ci télévision yi. wala ñu koy dégg ci rajo yi ay cocaïne ay héroïne wala ñu koy seetaan fi. léegi ay drogue la yoo xamante ni bii suñu population ñoo koy consommer. wér nga wax te drogue yooyu seen mode de consommation rek déjà dafay exposer nit ki à des maladies et d'autant plus maintenant. conséquences yi nga xam ne moom lay am surtout sur le plan mental. ah oui alors donc ce qui fait effectivement enquête yooyu ba tey ci la ñuy liggéey mais nag enquêtes yi dafa doyul parce que hmm. enquête yooyu hmm. ci dakaar kese la yem te la drogue ne se limite pas à ah, Dakar <laughs> ah mais mook man j'ai l'habitude même de dire que dakaar c'est la zone la moins problématique pourquoi parce que je dis au moins à Dakar le dispositif est am na ñu le CEPIAT qui est là am nañu les les les forces force de l'ordre qui qui qui sont là. am nañu ay centres yoo xamante ne nii sur le plan communautaire ñu ngi koy mettre en place. mais fii rek la mais vous le monde. génnal tuuti Dakar rek amul dara mais c'est le vide total. rien n'est prévu. et je pense que loolu vraiment dañ ci war a taxaw. mais euh, lamin yéen fu mu toll nii euh, seen intervention soppi jikko. si lan ngeen ko accès waa ñun fu mu toll nii li ñuy def mooy li ñuy tuddee réhabilitation réhabilitation ak réinsertion sociale. c'est-à-dire ñun suñu action dafa am lu bari lu mu ëmb bu jiitu mooy xam nga nit ki bu amee usager bu bu nekkee dans une situation de dépendance hmm. dafay am ay symptômes yu muy développé boo gisee ñuy wax ki am drogue ki dépendant dañ ko war a yóbbu ci médecin bi ñu faj ko généralement c'est pour ñu agir sur les symptômes mais ki nga xam ni dafay jël drogue kooku du ay garab ñoo koy faj donc symptômes yooyu moo tax il faut que quelquefois ñu am l'intervention du technicien comme par exemple le psychiatre yenn saa yi ñu am mais la l'addictologue c'est véritablement le médecin le plus habilité yéen am ngeen yooyu yëpp yéen à recevoir non c'est ñun dans notre centre on a pas ce dispositif là cest dire ñun li ñuy def dañuy lëkkaloo ak comme lu mel ni hôpital psychiatrique bu Thiaroye comme lu mel ni CEPIAT ci région yi comme mel ni dalal xel ñoo ñëpp dañuy lëkkaloo ak ñoom léegi ñun bu ñu amee cas bu ñëwee si ñun dañu leen di référer ku nekk en fonction de fi nga jógee boo demee ñoom technicien yi ñoom ñooy def maintenant l' intervention médicale maanaam purement médicale. léegi Lamine yow euh, si at bi. Mhm. ñaata nit ngeen di ngeen di dalal foofu. waaw xam nga ñun boo jëlee suñu projet bi nga xam ne ci lañ doon yëngu parce que laa dag may indi maintenant ci projet bi carrément. parce que dañ ko démarré woon 2009 léegi 2015 bi moom lañ koy boucler alors dans le projet li nga xam ne moom laa d'accord woon ak suñu partenaires yi c'était que ñun dañuy développer dañuy commencer defar benn modèle de travail. parce que xam nga suñu dëkk bi dañu tàmm bu ñu bëggee def dara rek dañuy ñëw rek mettre ko oh. te nit euh, liggéey boo ko bëggee def. Ah, ngay méthodique. voilà alors donc loolu moo tax ñun ak partenaires yi lu ñu d'accordoon c'était déjà de confectionner un modèle de travail parce que jusqu'à présent on n'a jamais entendu parler maanaam musuñu wax mbiru réhabilitation au Sénégal donc bu ñu demee ba nga xam ne ñun dañu bëgg def liggéey boobu war nañu fexe ba mën a commencer nag mettre en neuve appliquer ay outils ba xool outils yooyu yan résultat la ñuy jox bu ñu demee nag ba tollu ab diir ba gis résultat yi nga xam ne moom la ñu am maintenant ñu mën a modéliser suñu suñuy outils pour que nag ñu mën a. am léegi entre 2009 2015. en moyenne at bu nekk 2015. Hmm. ci projet bi en réalité on devait recevoir dix usagers par an parce que ci modèle lañ nekkoon mais on a vu que ñun bi ñu ibbee puisque offre yi bariwul dañ daan dem ba plus de vingt cinq usagers par an ce qui fait que bi ñu demee ba nii 2015 euh, bi ñu defee suñu situation on se retrouve actuellement à plus de cent soixante quinze usagers que nous avons accompagne de 2009 à maintenant. De, euh, mais loolu yëpp. waaw c'était dans le cadre du modèle. parce que modèle la mënuñu woon rek ibbi mu def rush. ñëpp ñëw parce que non seulement la cadre ne s'y est pas. mais aussi on n'a pas suffisamment de personnel boo xam ne mën na jël yenn yenn yenn nombre yi. Euh, Maimouna Diédhiou yow ban ban ban message ban dénkaane nga bëgg ñëpp dégg ko. te message mooy lan parce que damaa bëgg a woote en premier suñu morom amical mooy suñu localité. Mm ñu jéem a ñëw ñu mànkoo parce que benn village tamit mënuñu taxaw ci benn seet ñu lu ñuy def am na village yoo ne defuñu ko mun nañ ko def mais ils sont pas les comment dire les moyens ou la stratégie de le faire donc comme ñu ñu ngi koy yëngu d'ici cette année mot na 21 ans bëgg naa suñu village environnement man dañoo bokk ci commune bi wala yeneen communes yi ñu daal di créer ay amicale parce que amicale gis naa njëriñ bu muy def ci. ci ci étudiants yi. waaw léegi yéen seen amicale bi lan ngeen defagum loo xam ni lu am njariñ la pour Suel foofu. ñun lu ñu def bëri na trop ndax non seulement dañuy investir ci école bi les premiers euh, les premiers créateurs de de de de, de bu ñu daan ñëw on s'est on s'est vu que suñu suñu école bi a manque de fenêtre de de de de porte dañ daan financer ay ay ay porte de de trois classes foo bu ngeen di financer. ndax ñu dañuy def suñu activité dañuy on fait des cotisations on on organise des des non non seulement am na ñoo xamante ne bu ko dégg dañuy naan pour foo la mais pas pour foo. leen soirée bi après dinañ jël xaalis. bi ko doon defee. ça dépend koy def DSM camp militaire DSM centre social Marie Immaculée. Hmm. voilà en fait soirée dansante ngeen ba mu ba mu ba mu neex après xaalis ngeen jël ko def. waaw waaw mais mais l' objectif pas soirée bi en tant que tel ñun fu ñu nekk nii fond moo ñu tax a def ay soirée. bon léegi parce que dañuy def ay parrainage ay hommes d'autorité ñooy ñëw. comme kan comme kan comme comme comme comme comme la waxoon noonu. y a un directeur xamu leen tamit. si yow mi yaa xam waaye ñu bëri xam nañu amicale mensuelle. waa léegi euh, euh, Maimouna Diédhiou. Mhm. yow euh, sa message nga ni mooy waa su Suel yëpp nañ ñëw bokk ci amical bi et ñoom tam nañ taxaw taxaw seen amicale. voilà moo wax ko ci Joola. ñoom de saa bëgg na borom ku Joola kandi ka jant na ma à travers 2STV message yi ni Bajum beeg lancé ku Joola. yeenomi ko jukku jamnane akkoyti jama konde kane panko sofmante fourreur banuleeri fourreur wuli kokude candicatel malgré les difficultés sa wulu rencontre les étudiants à l'université mais wuli kokude kat siyaja soleli manu lako manu juyto bu jom kalo pour man amicale ngone jo foccul parce que aw jikene jak kanu primé am depuis nen amicale juume be jak jakku joro job kan kanu manji kemak sont de de euh, comment kati maîtrise donc jakko guisafumante wawlonde kane foureur jijo mu soforama amicale e jofoccol surtout ma les anciens étudiants kanu manje koko créé amicale manko jow ɓe jaat ils sont des euh, muy ku ku principal ku professeur ku docteur ɓuri kooku de wonki manku leeñu ku jikket amicale bale mu manku ngole ku jittum amicale tanu manje ka jompani ngaru suel nafa bon euh, waxal ma su joolaa nenne saane na ñëw ñu dem kaparan waxal <laughs> nenn saane Tunkara naane ujoo wañi joo ko parang <laughs> Lamine message bi lan la ok euh, message bi mooy xam nga euh, c'est vrai que mu xuus trop ci débat bi hmm. mais xam nga yàgg naa di wax toujours ne xam nga ñun suñu dëkk et mooy li am euh, la lutte contre la drogue dafa nekk ci ñaari levier benn levier bi mooy lu ñuy tuddee la réduction de l'offre beneen bi mooy lu ñuy tuddee la réduction de la demande ñaari levier yi il faut ñuy ànd bu nekk taxaw mais bu benn bi demee rek bëgg bàyyi beneen bi day na sax du mën a dem. parce que répression fii la ñu gën a kii répression bi ci la gën a insister te léegi il faudra que davantage ñu renforcer la la la réduction de la demande. naka naka nan la ci loolu. Hmm. xam nga nee naa la léegi dem nañu yàlla dimbali nañu ba vraiment am na lu ñu expérimenté ba am nañu outil boo xam ni jàpp nañu ni lii day fu ñu ko doxalee même yow Tunkara sax bu ñu la ko joxoon tey boo demoon ibbi sa centre di nga xam nan nga mën a accompagner un usager ba yàlla dimbali ko ba keroog ngay dem di ko. parce que Lamine dina am solo li ngay wax nii ngeen yéen ngeen hmm. maas ñeneen. ñu ubbi ay centre ci lañ nekk un peu partout ci lañ nekk moo tax on va faire le lancement d'ailleurs dinañ la ci invité suñu lancement modèle parce que maintenant pare nañ ko. def nañu conception bi ba pare on est en train de l' imprimer imprimer ko imprimer ba pare. rek waa ministère partagé ngeen ak ñoom. ñoom ñëpp ñu ngi partagé ak ñoom parce que on travaille. ensemble ñoom approuvé nañu seen modèle. waaw mais quand même ils nous ont suivi parce que ñun ak ñoom ñoo bokk. parce que tamit dina am solo Lamine euh, centre bi xam nga Sicap Mbao fu toll nii euh, am na benn mais tey. Uh-huh. Thiaroye war na am benn. waaw euh, tey Yëmbal war na am benn. tey xam nga parcelle doon na am solo daal. léegi nag loolu moo tax ñun. dafa am actuellement ci benn euh, processus bi nga xam ne ci lañ nekk parce que dañu ne xam nga sànq wax nañu affaire u données hmm. on a des problèmes de données chez nous il faut ñu accepter ko statistique maintenant ñun on a dit xam nga boo déggee 2014 bi yëpp ba 2015 bi on a ko parlé de la drogue à l'école ñëpp a koy wax koo wax mu ne suñu école bi fu mu toll nii yàqu na ndax drogue mais booy seet depuis booba tey amul benn action bu durable bu consistante boo xam ne def nañ ko dans ah, les écoles pour faire face ah, à Sénégal ñun tolluwuñu foofu ñun ñun on s'est dit il faudra que ñu commencer maintenant à intégrer ces en quoi faisant dañoo mettre en place un programme qu'on a appelé un programme de réduction de la demande de drogue dans les établissements scolaires on n'a pas choisi parce que mënuñu tëb tëb rek jël Sénégal bi yëpp ñu tëb tëb aussi même Pikine bi ñu nekk jël Pikine on a pris un échantillon yem dans l'arrondissement de Thiaroye l'arrondissement de Thiaroye compte deux lycées onze collège euh, collèges ak quarante école privées moyen secondaire donc ñooñu lañ jël ne maintenant dañuy def une enquête dañuy def de une recherche boo xam ne dinañu permettre ñu mën a xam le profil de la drogue dans nos écoles. Ah, nan la posé woo ñu ngi wax drogue ci école yi mais drogue ci école naka la koy xale yi di consommer yan mm. drogue la ñuy consommer. Mm. fan la ñuy jëlee consommation boobu. Mm. énormément de questions yoo xamante ni bi war nañ leen war a mun a renseigner. pour mën a xam nag léegi yan politique la ñuy mettre en place pour vraiment mën a. adressé ah loolu moom loolu am na solo parce que xam nga information soo ko amul mënoo teg politique. très bien mënoo def suivi mënoo def évaluation mënoo def amélioration. loolu loolu yëpp mënut a nekk léegi nag loolu vraiment avancé nañu si. mais dañu mettre en place un un, de pilotage. boo xam ni parce que gis nga suñu dëkk bi lu ñu xaw a gën a sonal mooy toutes les autorités surtout nag les autorités locales. problème bi ñoom ñëpp xam nañu ko mais personne vraiment du jël initiative bu dem ci maintenant nous on a dit on va inviter toutes les autorités et le préfet de Pikine c'est le moment vraiment de le saluer moom bu mu ñëwee gis projet bi tout de suite il a adhéré te nee ñu d'ailleurs moom il va contribuer financement euh, financièrement à la mise en œuvre du projet léegi affaire bi kañ léegi nag ci processus boobu léegi ñu jël maire yi nga xam ne ñoo nekk ci arrondissement de Thiaroye bi yëpp ñu dugal leen ci comité de pilotage bi ak organisation yi nga xamante ni bii dañ ciy intervenir ak maintenant ñi nga xam ne ñooy IA IF ak le centre médico-scolaire. bon Lamine loolu mooy yow euh, processus bi ngeen ko doxalee. léegi sa message ban message. léegi nag li ma bëggoon wax mooy. Hmm. xam nga loolu projet boobu. Euh, euh, dafa am solo. te dañu ci woo vraiment toutes les autorités ak toute la communauté éducative parce que en réalité ñun xam nañu les problèmes qui son dans les écoles mais problème yooyu bu ñu ko xamee rek nag. te duñ ci indi ay saafara aussi vraiment njariñ li euh, lu néew lay doon. Euh, ñoom euh, Lamine Touré ñi vraiment ñoom dañuy bay waar waa Sane soppi jikko fii ci mais Lamine tey képp koo xam ne. Euh, waajur surtout bu jaaxle parce que xam nga waajur léeg-léeg dañuy jékki-jékki rek gis ni seen doom mu ngi ci drogue bi ñoom yëguñu xamuñu lu xew euh, ñu jaaxle euh, ñu mel noonu mun nañ ñëw seet si leen waaw ñooñu ñun ñooñu lañ fi nekkal bu ñu ñëwee ñu yaatal leen hmm. dalal leen xamal leen ni aussi que nattu ñëpp lay daal la képp koo xam ni sa doom da ngaa jékki-jékki rek gis ko mu nekk ci wàllu drogue Euh, bul tiit bul jaaxle nanga ñëw si waa centre soppi jikko fii ci euh, Sicap Mbao bu Lamine Touré mii di di jiite su ko ñu dalal la ba pare walla yoon yi nga xam ne si ngeen di aw ngir mu am euh, jàppandal ñu bàyyi leen léegi ak seen jàngat bu njëkk si. mbokk yi tey sunu taxaw seetlu ñu si ànd ak Mamadou Seydi Diallo Mamadou di Diallo moom moo jiite les volontaires de l' du fi gan. waaye tey daa ñëw indi raaya raaya yoo xam ni dañ leen ko sargale Mamadou Seydou Diallo di la nuyu la daal la ziar. waaw ñu ngi lay delloo nuyoo Tunkara. aywa moom euh, ñëwoo loxoy euh, lii day euh, firndeel rek amaana ne yéen li ngeen ne di saytu li ñu wër loolu newu leen si si neen ba tey ñu sargal leen ñaari sargal yi yi lu mu doon moom sargal yi. waaw jërëjëf alhamdulilahi lazi kalaga samawati wal arda wa anzala lakum min as-samaa'i maa'an fa atbanna bihi hadaa'iqa zaata baajatin wa maa kaana lakum an tunbituhu sajaraha a ilaahun maa allah sadaqallaahu al-aziim ñu ngi lay gërëm bu baax di di la sant di ñaan nag yàlla euh, yóbbee ñu d'abord ci màggal Tuuba bi ñu dëgmal te defal ñu ci jàmma ak tamit euh, xéewal ak naataange li ñu fa nar ñaan yàlla nañu ko yàlla tuural si ci réew ak tamit mag euh, gàmmu bi nga xamante ne moom la ñu dëgmal euh, trophée yi mooy coupe yi euh, benn bi mooy concours bi ñu defoon mhm. concours bi tuddoon concours national sur les pratiques innovantes mhm. développement local ci Sénégal téeméeri participants association ak fukk ak juróom-ñeenti ñoo participé woon Euh, euh, ñu demoon ñu amoon nekkoon deuxième. Hmm. ci ci prix yooyu. Mhm. prix yooyu la doon joxe le treize octobre bi bi passé. te ministère de développement local moo ko doon présider. Mhm. vraiment mu nekkoon mbégte mu nekk itam loo xamante ne région Sédhiou yëpp ñoo ko ñoo ko gagné. Mhm. particulièrement département Bounkiling euh, ak Kabada. bi topp ci mu nekkoon premier novembre. bii ñu nekk nii. mooy trophée weer boobu mu koy ñu koy tuddee trophée weer. boobu mhm. dañu koy jagleel ñi nga xamante ne dañu leen di gën a ràññee ci Sénégal at bu jot ci mbirum environnement euh, boo waxee environnement nga ne euh, naat. Euh, yéen yéen moom dëgg-dëgg te ku wax environnement rek wax dund. ndax environnement bu amul ñun si environnement la ñuy dundee. te environnement bu amul bu ñu ko yàqee. suñu dund dafay yàqu man euh, dama koy faral di wax ni dafa bokk si li tax yàlla suñu borom indi ñu si kaw suuf ñu saytu environnement bi loolu ñun suñu warugal la ndax si la ñuy dundee euh, si la ñuy maanaam si la ñuy dundee daal moom tënk na lépp euh, li ngay dundee soo ko yàqee ba sa dund si boppam moom nga yàq tey ginnaaw trophée yi tey ban message nga bëggoon leeral waaw li jiitu d'abord ñu ngi am mbégte keroog bi ministre bi di jógee trophée yi dafa waxoon ne lii identification la kon boo nekkee ci sa localité di liggéeyal sa sa sa sa sa sa xeet di liggéeyal sa réew bee ñu ñëw ràññee la nee la jërëjëf dafay encouragé. Ah, kon euh, lii dafa ñuy dafa ñuy encouragé surtout yéen bon mbir mi xam nga volon bu ñuy wax volontaire de la mooy yéen ut leen si dërëm ut leen si ñaar dërëm ut leen si ku leen gërëm ut leen si dara. da ngeen di euh, liggéey rek pour askan wi yëpp jëriñu. te yéen euh, te loolu moom euh, loolu loolu loolu dafa bokk ci nite. dafa bokk ci nite ngay def loo xam ne yow yéen ñeneen nit ñi ñoom ñoo si jariñu te yow sax amaana doo si doo si jariñu loolu moom dañ leen si delloo njukkal bu baax tey moom say Diallo ban ban ban dénkaane ban message nga buggoon fàttali. waaw li may fàttali rek mooy di wax ne sénégalais bu ne na nga gëm ne yow yaa mën a développer sa réew. ki sénégalais bu nekk nag ak foo man ta nekk ak loo man nag ci côté boo man ñu bañ a rek ne jàng naa ba am naa samay diplôme di xaar état di ma jox liggéey uutalal sa bopp liggéey bu ñu la joxul liggéey di wax itam suñu gog bi ñu nekkee yàgg naa di ko wax suñu ko aaree ñu toppatoo ko xeex daay xeex ni ñuy yàkkee àll bi góor garab yi ñuy naa wax ne dootuñu soxla ñuy xaar xaru tabaski bu jógee Mali wala Mauritanie wala beneen réew boo xamante ne ñu ngi dënd ak ñoom ndax gënuñu leen dañu liggéey rek mën a am seen njur doyal bee di jaay Sénégal kon ñun itam nañu mën a euh, liggéey bee dootuñu soxlaal lu jógee ci keneen ndax ñu mënal ko suñu bopp. message pour environnement bi nag lan la. waaw message pour environnement bi dafa soo koy xalaat sax. da ngay bugg a jooy. Ah, ndax ku xamoon <laughs> ku xamoon fanweeri at juróom fukki at ni àll bi naatee woon damay wax ne boo amoon juróom fukki nag ci juróomi at mën nga dem bee am téeméeri nag sax waaye léegi ku amoon juróom fukki nag juróom fukki nag ci juróomi at. Eh, at bu jot nga deele ñaari fukki nag. kon loolu dara waralu ko lu dul ke ne àll bi mooy yàqu daay am daay day am. Mm-hmm. nit ñi toog ci pencu yi. di wax ne xool leen daay bi kenn du déplacé parce que pour ñoom loolu seen yoon nekk ñun suñu réew mi daf ñu jaralul dara dafa ñu jaralul dara loolu nag dañu damay ñaax doomu kabaada hmm. euh, département de Bounkiling hmm. ngir yàlla euh, nawet bi arrêté na ñag bi mu ngi wow hmm. am na lu ñuy tuddee par am na lu ñuy tuddee feu précoce nañu dem ko déegu préparer daay bi di nar a ñëw pour bu ñëwee mu bañ a ñu sonal. ndax bu sonalee njur gi sonal ñu. Ah. ndax maa ngi seet fukki at ak fukki at ak juróom ci gannaaw kenn amul looy dund ci li nga béy ci fukki weer ak ñaar. Hmm. kon fan nga koy sukkandikoo jaay say béy jaay say nag pour mottali. ndax yooyu nag bu jeekee te ñaq bi di gën a yokku. Hmm. naka la ñuy def kon nañu xeex alam bi di wax euh, euh, euh, région de Sédhiou. di gërëm d'abord suñu sous-préfet wax dëgg yàlla bu yàggoon fii kon li ñu dal tey du ñu dal. Euh, li ñu mujjee Mamadou Seydi Diallo mooy président bi mu ñëwee euh, jamono jële foofu euh, dégg nañ ko mu métit lu àll bi ni ñu koy goree garab yi ñu ngi leen sàgganee président vraiment métit lu ko waaw mais boobu ba léegi yan décision lañ jël ak yan action lañ def ngir président métitam boobu ñu gis ko si terrain waaw ku bëgg Sénégal boo fa boo gisee conséquence yi fa nekk ci gor àll. da ngay jooy waaye solution bi bi ci nekk rek mooy li président waxoon permis coupe permis yu ñuy joxe pour ñu dagg garab yooyu la ñu war a annuler ndax njaaxum yi musiba yi yëpp fa la làkkoo. waaye président nag yan action lañ jël boobu ba léegi. na nañu ko arrêté. est président wax na ko méridien arrêté wuñu ko léegi nag dañu ko war a suivre. dañu ko war a suivre président léegi waxu président amatul benn fulla si réew mi. waaw loolu nag autorité yi nga xamante ne. ñoom ñoo fa taxaw ngir président. ñoo ci war a gën a mën a taxaw. parce que sous boobu ngay wax ni que moom dañ koy gërëm ak yooyu président nee na nañ arrêté annulé permis yëpp mais loolu ñoom lu tax duñ ko def. waaw moom su préfet waxtaan nañ ci ay yu bari. léegi nag xam nga dafa am lu ñuy wax code euh, environnement. waaw ay dafa am ay article am ay ay ay ay ay ay règlement ak yooyu. yooyu nag dafa ci am yoo xamante ne yu sew a sew la xoolal bu ñu la fekkoon nga góor loo mënta góor du ñu def dara lu fay loola lu tuuti peut-être. kaso bi juróom-benn weer la ak yu mel noonu loolu dañu leen di encouragé kon loolu nag la ñu war a seetaan. waaw ah non mais permis yi dañu leen war a annulé parce que président nee nañ ko annulé. wax na ko léegi nag man li may wax bu fekkente ne ñoom. Ah. fonk nañu waxu président nañu xotti permis yooyu baaxatul. baaxul musul baax sax d'ailleurs parce que xam nga leen la hmm. dangay am permis ñu bindal la ne garab bu wow la. nga dem góor garab yu tooy. Ah, dañu lay <laughs> jox permis bindal la téeméeri garab. nga dem góor junni ak ñaari junni kon man daal li may wax mooy ñii nekk ci localité yi ñoo ci war a jox xeet gis nga ñi koy góor ñi ci gën a bari dëkkuñu Sénégal eh. chauffeur camion yi ñi ci gën a bari dëkkuñu Sénégal borom camion yi ñi ci gën a bari dëkkuñu Sénégal ñoom seen soxla rek mooy seen poos bu jeekee ñu dem ñun ñooy nekkaat fii di ndool kon maa ngi wax maire yi euh, euh, euh, chef de village yi kilifa diine yi imaam yi eaux et chef secteur inspecteur régional gendarmerie militaire ñëpp léegi déjà boole nañ leen ci man li ma gëm mooy ñun dafa am benn yoon bu jógee ci Gàmbi dugg jaar fu ñu wax Kanikunda Budug Boggal Saare Alkaali gis nga yoon boobu musiba bi bu gën a bari fa lay jaar fan yii rek dégg naa sandarmory Sédhiou jàpp na fa juróom-ñaari kilo yamba foofu daal frontière bi bee gendarmerie 45 kilomètres la doo gis dara. ñooñu lakkuñu sax dañuy guddi ak bëccëg kon maa ngi ñaan d'abord sécurité ndax y aura développement sans sécurité nañu ñu utal sécurité ñu mën a aar suñu àll ñu mën aar suñu alal ñu mën a liggéey pour suturalu ndax buggatuñu ñu gis kuy dem di immigré ji ndax fi ngay immigré li nga fa doon li ngay fay liggéey développé réew boobu boo ko liggéey ci sa réew nga nga développé sa réew mbokk yi tey suñu taxaw seetlu ñu ngi si ànd ak euh, Nana Aidara Nana saa su dafay dikk di ñu defal fàttali si daara jooju nga xam ne ñu ngi ko amal fële ca ñàgg ca Lac Rose euh, daara ji fa tàggat képp ko xam ni soob na la si wàllum tabax wàllum mbay ak wàllum euh, wàllum sàmm. Euh, nanaay day dikk di ñu defal jàngat si ay moroomam ay moromu ndawam ñu newee ci réew mi ak nan la ñuy def bëgg seen taxawaay gën a jàppal nana la nuyu la lan la jaar. maa ngi lay nuyu Tunkara di nuyu téléspectateurs yi ñuy seetaan. aywa nana euh, tey de moom du Omar Aydara. non tey euh, Sadibou Fass moo fi aw. moo koy remercier de passage. Sadibou moom bu xonq la la defal. waaw <laughs> nana tey loolu ñu bëgg jàngatal. waaw tey euh, damay indi rek damay waxtaanee màggal bi comme que ñëw na. màggalu Touba màggalu Touba. waaw waxtaanee sama moromu jeunes yi nga xam ne ñu bëri ñu ngi fay dem te li leen fa wax a yóbbu yóbbu leen fa. màggal gi de moom ndaw ñu ñu fay ëpp ay ndaw la ñuy doon. ñu fay ba ëpp tunka ay ndaw la ñuy doon li nga fu mu nii foo tourné dëkk bi ñu ngi ñaan paas ñu ngi wax dañuy dem dañuy dem mais la plupart du temps dinañ dem Touba ba ñëw du ñu julli. du ñu dem jàkk ja du ñu ziyaare ji duñ fay def lekk yi mooy leen fay indi man loo sax bu ci yemoon sax mu neex mais tamit le fait ñuy dem ba Touba di ci boole ay caaxaan yoo xam ne yaakaar naa Dakar rek doyoon na ci. comme yan caaxaan ngay wax. donc euh, léegi jeunes yi sax li lieu de kii lieu de rencontre lañ ko def. tey jii hmm. damay am sama far di ko laajte naan ko fan ngay dal. Hmm. ñoom daa mel ni même petit distance boobu ñuy xaar Touba màggal gi jàll ñu retrouvé waat Euh, Dakar da leen. da leen farantu bi dañ koy yóbbaale. dañ en dehors de ça aussi am na ñoo xam ne dañuy dem uniquement pour sàcc dafa mel ni liggéey fu mu toll ni seen moo ñëw man mënuma concevoir lu toll ni Touba dëkk bu mel ni Touba borom Touba liggéey Sénégal lu ne ñun amul ñu luñ koy fayee ñun jeunes yi lu dul dem ba Touba nit di ran pour dugg ci jumaa ji ngay jéem a rocc portable am. Hmm? yow Bakar rek yemoo yemalewoo ko Dakar fii mais il faut nga. jikko ju bon daal lu ñuy wax rek naan foo dem yóbbaale ko. mais mais jeunes yi euh, Nana est ce que tey ñoom tamit du ñu ay victimes parce que màggal gi dafa mel ni nit ñi yaruñu leen si bu ñu ñëwee ban taxawaay lañu fa war a am parce que nit léeg-léeg dina dem màggal ñëwaat. amul benn jeexital ci moom. Mhm. ndax tamit foofu amul loo xam ne euh, liggéey boo xam ne dañ ko waroon def te defuñu ko. man tout cas man je pense pas dafa am ñoo xam ne seen jikko la rek. am na mm. tey ji ñoo xam ne dañuy dem ba tuub dañuy dem Touba jàpp julli lañ fay nekkee dem ci jumaa ji ziyaare am na ñoo xam ne bu sëñ bi naan yeewi naa leen ñuy teg ci yoon bi ñooñu moom da leen leer ni màggal kese kese moo leen yëkkati ñu fay dem di prolonger ay une semaine deux semaines déjà ak ñàkk xel la nañ ko te dee dëgg neexul mm. donc ah, ku la dalal di la jox lekk di la jox naan wàcc ay lalam jox la yaakaar naa ni boo fa defee ful la ba pare war nga ñibbi mais dañuy dem wàcc ak douche jàmbur yi mu mel noo xam ne kenn xamul lu mu doon mm. ñii di retrouver wu ci kaw di tux ñii di dem ba Mbàkke jaraleen dem ba Mbàkke uniquement pour defi lu bon mais en tout cas lu bon yaakaar naa ne wax na mën a yem Dakar hmm. lan ngay jéggaani Touba dem ba Mbàkke uniquement pour uti ji ay caga nañ ko wax te dee ah, dëgg neexul mais looloo fi am bu daaw bi rek ñaata ñaata nit la ñu jàpp ci ay maison close loolu lu am la jàpp ko siiwal ko waaw waaw ñu bëggoon tamit ñu bàyyi ci xel bu baax a baax daal hmm. bu ñu suñu jikko yi daal nañ ko wàcce fii nii dem defi ji fulla farata daal di ñëwaat yow mës nga dem màggal Euh, waaw mos naa dem benn année. mooy profito di nuyu sëñ Bas Baara bu baax. ak soxnaam Awa Ndiaye. aywa euh, soxna Awa ñooñu euh, waa ñooñu ñooñu samay waa kër la ñoom sëñ Abdou Aziz Mbacke Majalis. Mhm. ñooñu samay waa kër la ñoom soxna Ami Cheikh Mbacke. ñoom soxna am Diarra ñooñ ñoom ñu am Pastef lañ nana lan ngay jeexale. waaw nee nañ ci bàyyi xel. nit chaque année da ngay jàng lu bees chaque jour sax da ngay jàng lu bees c'est pas parce que ni am nga habitude chaque année ngay def dara ni force da nga ko war a nit ku lu maam Abdou di wax rek naa nit ku nekk a dugg rek a kanam di yeddaat baax na nga wéet ne man la kan xam yow yaay kan xam fan nga josaanoo xam ne lii kan man dama ko war a jomm lii waruma kaa def de gën daal lu ñuy wax rek ne xoolaat sa bopp jaw daaw c'est parce que dem nga fekk kuy charger portable am nga rocc yóbbaal ni ren forcément da nga ko war a non na la fa ful la yóbbu nga profitoo sax tuub en en euh, en même temps ba pare daal di ñibbisiwaat man daal loolu laay dénk jeune yi comme que màggal gi ñëw na nañ daal nañu dem def farata bu ñu defee farata ba pare aussi ñu ñuy fa dalal bu ñuy dem nañ leen remercier bu ñu yàq seen kër yi àdduna mooy xel jamono mooy bët bu la nit dalal wàcc lalam ba pare nga def ko lu ko neex këram dem noonu bàyyi ko wala toog rek kër jàmbur ay une semaine deux semaines fu mu toll nii fépp moo metti Tunkara situation bi fépp la méttee. Euh, waa Touba dañ leen di delloo njukkal ndax xam nga euh, xol bu yaatu. ak euh, xel mu neex rek moom mooy tax li ngay wax nii yëpp euh, nit di ko def wàcc lalam euh, bàyyi la ak saalam bàyyi la ak néegam pour rek yow nga nekk ci jàmm nekk ci ci dal loolu moom ku sa xol yaatuwul doo ko mën kon waa Touba yëpp ñoom soxna Joor Ñang vraiment soxna yu am Pastef ñooñu ñoom dañ leen war a delloo njukkal spécial ndax seen xol yu yaatu waaye waar la woo xam ni képp ku siy bàyyi bu soobee yàlla yow di nga góob te suñu borom dina la fay mm-hmm. gën di fay. mbokk yi tey suñu ñaareel jotaay Sénégal ca kanam ñu ngi si ànd ak euh, soxna Mariama Guèye Sarr Mariama Guèye Sarr moom bindkatu taalif la ànd tamit ak Mamoun Diakhaté Mamoun Diakhaté moom euh, marchand ambulant yi ne fii ci marché HLM moom moo leen euh, moom moo leen jiite Mariama Guèye Sarr la nuyu la dal la ok asalaamaaleykum mbokk yi. waaleykum salaam. ci nekk maa ngi lay nuyu ci sa tur ak ci sa sant. sa mbokki bawal yi nag noonu nuyoo. sama sama mbokki bawal yi ak Sénégal li ko wër. aywa bawal bawal yi am na nu ñuy nuyoonte wala benn nuyoo la rek. benn nuyoo la rek. sama mbokki bawal yëpp di leen di leen ziar foofu moom sama waa kër yi bëri nañ yow euh, Mamoun di la nuyu di la dalal la ziar yow it. Ah, maa ngi lay fay di soxna Mariama Gueye yow euh, da ngay bind taalif bindkatu taalif wolof. ñaata téere nga bindagum. waaw bind naa juróomi téere. Hmm. waaye bii mooy téere bi njëkk. bi njëkk moo waral ma tuddee ko ndoorteel ndorteel mooy loo xam daal day tàmbali. day tàmbali. léegi yow euh, bindum wolof da nga koo jàng lu la si xeet. waaw dama koo jàng nag naka jekk ba ma nekkee xale ba léegi soobu ci njàngum nasaraan dama doon faral di ci faraatu ay araf. Mhm. maanaam dama daan toog naan man ay olof nu mu ma neexee. far yàlla def li mag ñi naan xale bi lu mu bëgg boo ko ci jàppalee rek ëllëg dina ci gis. ku la jàppalee yow ba sa wolof leer. waaw sama wolof ki ma ci jàppale ba mu leer mooy dafa am ay daaray wolof yoo xamante ni dafa nekk ci gox-goxaan yi. Mhm. yàlla defee nag ma sóobu ca di ca jàng liifantu yàlla dimbale ma si. comme yan yu xeet yu mel ni yan daara daaray wolof yooyu. maanaam école yi. Hmm. école alphabétisation yi ñuy defar ci gox dëgg la dëgg la ci yooyu laa soobu woon mhm. xarañ ci lool yàlla jàppale ma si tàyyiwu ma ci nag benn yoon ndax mënoon naa ne handicapé laa mënumaa dox hmm. waaye dama daan jóge Thiès ak suñu quartier fa mu nekk ak hôpital régional fa laa doon jóge di dox di jàngi lépp ngir bëgg ko ci sama biir xol te suñu borom fekk si fekk si ma fi ba ma dem ba di di ci bind ay téere taalif ah, waaw téere yi yow loo si wax waa téere yi moom yàlla def na moom lépp lu doomu aadama di dund moo xam ci waxtu lay doon moo xam ci bés bi lay doon moo xam ayu bés moo xam weer moo xam at lépp lu muy dund rek yàlla def na boo ubbee téere bi boo jàngee gis ci sa bopp danga naan hmm. daanaka Mariama kat ndekete lii mu tënk ci téere bi man lay waxal ah waaye nag yow am na foo xam ne gëstu xalaat maam ab Ablaye Wade kii de xanaa jamono yi maam Ablaye Wade nga ko bindoon moom waaw da ko cee fekk nag. nga ko doon sargal. da ko cee fekk. mu toll nii eh, sëñ Macky moom doo ko bindal ab taali. sëñ Macky ankay ndax sëñ Macky jot na ci téere bi. Eh, jàng na koom. ah jotuma leer ndax. jàng président Wade moom jàngoon na ba som boom ba. ba bind la ab bataaxal. ne daal moom eh, jàng na téere bi nangam nangam. Ah. moom daal la si wax moom gisee ngeenam jotuñoo gisee nag waaye ah. am na ñu ma booleeloon. ndax ah. ba ma ko joxee téere bi sargal ko ci. Hmm. teguñu ci juróomi fan mu bind ma bataaxal bi mhm. ngir jàppale ma ci yéeneem mhm. waaye ba mu ma nee bindal sama tontu boo bindee sa tontu joxe ko bu soobee yàlla dinaa la jàppale waaye ba fi may wax ak yow ni juróom benni tontu yoo xamante ne samay soxlay bopp la lépp joxe naa ko waaye ba tey ba sànq ah xanaa gaañ yi moom dañ koo xaw a faxastal ah, loolu ah ma ci euh, jaaxal <laughs> ndax te góor gi moom ci mbaaxam moom hmm. képp ku mu yéenee moom bu soobee yàlla ku mu la boolee rek nee na waaye góor gi loo ko doon wax moom jox la waaw góor gi dama daf ñoo tabaxal benn centre handicapé ca Bambey waaw centre bu rëy nit ki ku ci nekk ci li nga yëngu mooy sa teraanga sëgam yàlla def na taalif yi mooy sama teraanga awma alal ju ma ko jox ma njukkalee ko taalif gërëm ko ci centre ba mu ñu defal ndax centre ba benn jumtukaay manqué wu fa defal nañu lépp ba ci atelier yi ñuy góor góorloo hmm. def na fa ay jumtukaay yu ñu war a liggéeyee centre baa ngay dox centre ba doxul hmm. doxul ndax boo waxee ñu ne la budget premier mai 2013 lañ ko inauguré woon jamono yooyu si laa joxoon euh, Macky Sall euh, livre bi ah, teg ko ci tokk teg ko ci loxo Mimi ture mu ne ma bu soobee yàlla de livre bii nii nga ma ko joxee ak bataaxal ba mu àndal dina tegu ci loxo njiitu réew mi mu ne ma yegg ma tere njiitu réew mi wax ak yow ba démb ba tey moom moom soxna mu Touré moom soxna Mimi Touré yàlla ñun de suñu politiciens yi waa léegi euh, li ma bëgg a xam mhm. centre boobu inauguré nañ ko mai 2013 présidence boppam inauguré ko waaw dañ ko inauguré rek tëjaat ko. dañ ko inauguré tëj ko <laughs> léegi ñun ñi nga xam ne ñooy borom ñaxtu nañ wax nañ lu ne ñu ne budget waaye yaa est-ce que am na ñu ñu fa fal ñu war ko jiiteeg yooyu yëpp. personnel ñi ñu fa fal ñëpp nga fa personnel ba ak ñëpp nga fa waaye ñun waay laago yi ci suñu jëmm bopp ñoo ci mënta baa nga fa toog ñu leen di fay ak <laughs> yooyu ñu fay waaye waaye suñu réew mi moom. <laughs> suñu réew mi eh? kay moom mi ngi noonu. personnel yow yow yow ban laago nga am. man handicapé motrice laa. mooy lan. Eh, benn tànk boo xamante ni dafa laaj. lu ko lu ko lu ko lu ko. pikiir bu rate moo ma ko jox. est-ce que docteur boobu moom docteur yi tamit nañuy piqûre tamit ñu ñu piqûre yu baax tamit xam nga ah. piqûre bu raté rek nit ñàkk tànkam tamit loolu tamit euh, vraiment suñu réew mi waa nga ne centre ba daal ma nga tëj. Ah, centre ba daal moo nga tëj. <laughs> waa léegi luy pexe. ah liy pexe kay mooy ñu ñu jàppale ñu ndaxte man mi centre ba def naa fa juróom benni at. loo fa doon def. boobu dama fa doon ubbi woon fa atelier doon fa ñaw ndax CV bi bi ma la jox ni tey boo ko jàngee xam ne nekkuma ko yàccaaral. maa ngi yëngu ci lu ne. seetal ma lii rek. ngir bëgg ku ma jàppale. sama téere bi nag moo ma gën a soxal. Ah. ndaxte téere bi dama ko defar ngir ñu jàppale ma ndax tey ji ministère yi ci ndakaaru yëpp bu ne bu ma nee ñaara ma ci dese wala ñett nga ne ma déedéet. Hmm. damay xëy dugg ci tataayi man ak ñoom di këlan këlan ba bu ma demee du ma dese ndigg lépp ngir bëgg ku ma jàppale. ñoom kay téere bi bu ñu si doon jàpp lii mënoon nañ fexe ba ñu koy jàng si école yi. téere bi nag mi ngi partout. xëy na jëmm ji moom la nit ñi xamul waaye téere bi moom am naa yaakaar ci ne nit ñi xam nañ ko. Euh, Mamoune yow euh, marchand ambulant nga. waaw tablier. tablier am table. looy jaay. man rideau laay jaay. yow waa fan nga. waa tubaa waa Touba common town nga. la <laughs> ñaari bawal bawal tey ñoo ma ñoo seex <laughs> léegi euh, Mamoune. marchand ambulant yi foofu marché HLM bi nga ne ñaata lañ. waaw recensement bi nga xam ne moom la def defoon en en 2009 euh, mi ngi tolloon presque ci euh, mille et quelques. junni yu topp. ah 2009 ba 2015 juróom-benn la de boobu léegi def ngeen recensement. am na non amaatugul recensement mais dañu gën a dolleeku. ah mais maam loolu kay leer na dangeen gën mais yow mii. Hmm. tey waroon nga xam li mu li mu ñaata ngeen foofu. nan ngay jiitee ay nit taxamoo leen maamu. waaw xam nga recensement bi ñu mën a bi ñu mën a bi ñu mën a bi ñu mën a jàpp mooy bi mujj a def en 2009 lañ ko mujj a def. waaw mais yéen bu ñu leen defalee recensement 2009 ngeen am ay maanaam lim at mu ne kay ñu bees ñu dikk foofu war ngeen leen xam su ko defee lim boobu ngeen dool leen si loolu rek la de parce que yow mënoo jiite ay nit taxamoo leen maamu am na liggéey boo xam ne foogoo ko de mooy xam say nit bon léegi ndax marchand ambulant yi dañuy am carte de membre si seen kuréel gi. waaw xam nga dafa dafa dafa am ay kuréel du benn kuréel mooy ëmb marchand ambulant yi nekk ci marché bi yëpp. yow kuréel yëpp yow yaa yaa leen jiite. man laa majeure partie bi ma yor xam naa ñi fa nekk. léegi ñi fa ne ndax dañuy am carte de membre. waaw dañuy am carte de suñu sama mouvement bi nga xam ne man moom laa jiite. bon léegi yow lan nga bëggoon leeral Mamoun. waaw dama bëggoon wax par rapport ak situation ba fa nekk rek nga xam ni euh, ay at ñu nekk foofu di daan suñu doole. Euh, ci anam bu nga xam ni la ñu war a fay lañu ñu sàttoon teg euh, borom mairie bi di ko fay ñoo ngi koy fay na mu waree euh, mu toll ci ay at daanaka fukki at ak juróom wala fukki at ak juróom. yow tablier ñaata ngay fay ne juuti. ñun ñu ngi fay 300 francs par jour la ñuy fay suñu. juróom-benn fukk benn fukk. Mhm. Mm. donc li ma bëgg a wax rek su fekkee nit ki da nga ko fekk ci foo xam ni def na fa fukki at wala fukki at ak nangam. ngeen di ngeen di jëflante ci anam bu nga xam ni amuloo ci dara lu la naqari eh, yaakaar naa boo ko fay jëlee tam war nga mun a eh, waxtaan ak moom ci ci ci njëkk. ak teraanga yéen bi leen fa jëlee parce que wax ji tamit da nga koy wax mu leer Mamoune. Hmm. marché HLM dañ leen fa fas yéene jëlee yéen ngeen lànk bay xeex sax. waaw loolu loolu loolu dafa am lu ko waral. léegi ba balaa ñu leen di jëlee foofu Mamoune yéen xabaar nañ leen ni que da ngeen fa war a jóge waaw xam nga fi naan yaakaar naa posé nga ma trois questions xam ne bu nekk répondre ma ko te yaakaar naa bu ñu continuer noonu rek c'est pas la peine hmm. déjà première question bi rek war naa ko tontu d'abord balaa ñuy dugg ci deuxième troisième dama bëgg a wax ni ñun maire dafay wax diggante ñun ak recasement invité ñu bureau woo ñu ñu toog mu jox ñu site bu tudd Amazon nekku ci gën a jige Colobane mais ci asalem la bokk ñu waxtaan ba déggoo ñu indi promoteur teg promoteur bi fixe prime laaj avance ñu jox ko avance la majeure partie des marchands ambulants jox ko avance kon ñun maanaam xëy yëkkatuñu loolu daf ñuy bett mais li ñu doon xaar ci moom mooy que ni projet boobu nga xam ne daf ko entamé en tant que kilifa jiite ko euh, lancé ko ba projet bi commencé ba nit ñi dugal seen xaalis yaakaar naa loolu dañ ko waroon. waaw daa ngeen di xeex. waaw xeex moom yaakaar naa euh, xale yi li seen leen seen maam jàngale loolu lañ tari. ndax xam nañ ni moom bi mu fi nekkee ba léegi dóore la fi nekkee ak saaga ak euh, ak allu àllu jàmbur. dama dama yaakaar ni ci ñoom ci moom lañ ko gisee. ci kan lañ ko gisee. le maire. boo léegi Mamoun pour yéen tey euh, dañ leen war a jël yóbbu leen si site de recasement boobu site boobu. ndax noppi na pare na. site ba dama la wax ni la maire dafa wax ne dafa am site dañuy recaser ñu indi promoteur bu ñuy wax Assane Fall mu ñëw taxaw. yenn délégués yi ñëw taxaw marchands ambulants yi ñëw taxaw ñu daak wax ba d'accord fixe prix ni ni un million la ñuy jaay place di moratoire moratoire onze mois avance trois cent mille ñi am avance trois cent mille am avance trois cent mille ñi am moyen de loolu dugal la ñu am ñu dem un moment donné maire ni site amatul. site amatul. léegi y de site xaalis mi ngi foofu tëdd marchands ambulants yi nañ voilà le problème. waaw mais tamit euh, marchand ambulant yi ak table yi ni ñu nekkee marché HLM jaaduwut parce que nekkin bu sauvage lañ fa nekk marché HLM jaaduwul li fa am réew bu bugg jëm ca kanam réew bu bugg normal dafay am marché bu normal te marché HLM normalut waaw li tax normalul loolu moo jar a wax li tax normalul mooy autorité yi hmm. maire yi hmm. ñoom ñoo nekkul si yoon ñoom ñooy ñëw yéen teg leen foo xam ne di leen laaj ay juróom-benn fukk par bés te hmm. kenn waru leen fa teg oto munu fa jaar nit munu fa jaar euh, mu mel ni tulleeg male loolu moo jaaduwut bëgg xaalis moo si dugal moo si dugal maire yi mais nag léegi tamit yéen da ngeen war a raisonnable marché HLM jaaduwul lu mu mel dañ ko war a defaraat te pour ñu defar ko yéen table yooyu foo ngeen jóge ko ban réew bu normal ngay dem si àdduna lu mel ni marché HLM am fa amul xam nga xam nga xam nga tey boo de boo duggee Sénégal amul benn marché bu nga xam ni mairie ba prévoir na fa lu lu mat 1000 d'accord naa fi. amut waaw. kon Sénégal Sénégal ci boppam ñuy yoree wàllu marché yi ñoo fuuse. loolu moom dama si ànd ak yow 1000 pour cent. Sénégal tey tey dama lay wax rek boo demee marché asalem. lañ nga xam ni la fa mairie def nga xam ni loolu lañ prépare pour marché asalem yaakaar naa matul 500 places. d'accord naa si. te asalem mën nga fa wàññi mille places. waaw. alors kon loolu mooy problème. d'accord na ñoom Sénégalais bi. Sénégalais bi wala autorité Sénégalais bi. lu ci bari moo dul liggéey à long terme. man d'accord naa. dafay liggéey pour moom tey. maa si ànd. yaa ne dégg jooni jooni. waaw ñu ni moo fi def lii. waaw yi kii fi nekkoon kenn du ci liggéey loo xam ne ëllëg danga nga naan da ngay da ngay sóoraale ëllëg ñi ñëw à l'avenir mais dañuy liggéey rek pour tey donc loolu moo waral tey euh, mbir mi demee nii. maam waaw maa ngi leen moom ñoo bokk benn wax. d'accord parce que euh, gis nga Sénégal marché euh. bu baax amu fi. amu fi. du amul ma xoolal. <laughs> amul fi nga jógee Sandaga dem ba marché Ocass. jaam jaam dem foo mënti dem. Ah, marché bu baax amul si réew mi. amul marché réew mu amul marché bu baax. waaw ah. loolu mooy réew mi ni ñu ko ni ñu ko yoree. Ah. kilifa yi waroon euh, maanaam teg yoon. ñoom ñoo wàcc yoon. kon li nga doon wax léegi. yow da nga jël marchand ambulant ne ko toog mu toog foo xam ne waru fa toog nga koy laaj 300 par jour yow yaa ko toog. est bu ko joxul nga yóbbu ko police te da nga koy saisir boole ci man ñaati yoon lañ ma saisir ci ay occupation de la voie ma ko lim. parce que joxe woo 300. non non parce que même bu dul 300 même fay bu occupation parce que ñun deux formes deux formes occupation de la voie bi ñuy fay quotidiennement. yaa tabaski dafay seer ba nga xam ne parfois nit ki bu évaluer li nga xam ne moo nekk ci place am. du ko jàll euh, bu ci génnee bor yow bu la fayee dafay lebi. ñaata la ñaata ngay fay. man par exemple man tabaski bi passé maa ngi fay 90 000 la fay. sama place. pour pour euh, période tabaski pour par la fête te du tee chaque jour nga takk nga dagg quotidiennement 300 francs par jour. xaalis. donc loolu du problème bi mais li problème bi mooy. su fekkee Sénégal amul amul amul amul amul amul population HLM ak population Waagu Ñaay ak ak population Colobane. kilifa dafay liggéey en tant que sénégalais. ay sénégalais ñoo fa nekk da ngay liggéey de de de manière générale nga xam ni képp sénégalais bu fa nekk daf ciy gis sa bopp. Ah, loolu day am fi nag ñun lu ñu constaté ba constaté ko daal mooy. li ñu gis maire yi di ko def actuellement hmm, amul njariñ bu dee centres commerciaux yi ñuy tabax au niveau de plateau amul njariñ parce que norme yooyu ñu koy defee baaxut bu dee au niveau d'Asile moom la fa nekk moo pire parce que arnaqué doomu aadama dugal ko ci procès jël xaalisam ba pare yaa ngi dégg dàq ko mu dem loolu yaakaar naa lu ñaw foofu la. Euh, loolu euh, te te xam nga xam nga jeunes yu mel ni yéen ñi nga xam ne vraiment euh, jom. moom moo leen euh, tax a toog foofu ak mhm. euh, daan seen doole mhm. euh, jeune moom su amee jom mhm. bugg daan dooleem dañ ko war a accompagner waruñu ko waruñu ko xatal mais dafa mel ni ñun suñu réew mi ni ñu ko organiser vraiment jeunes yi kenn kenn boolewu leen si bon Mariam sa message lan la waaw man sama message mooy que ni ñu jàppale ma ci sama livre bii waaw jàpp ban xeetu jàppale ngay wax pour ma mën a génnee sama deuxième œuvre waaw léegi kan nga bëgg mu nag Mariama ki ma ah, bëgg kay mun xam nga ko ci mel ni tey ji Fama Diagne seen kii moom directrice su bibliothèque bu Bambey la moom moo ma jàppale ba ma génnee bii te ñàkkuma si dërëm nag mu defaral ma cinq cent exemplaires lépp ngir bëgg rek sama liggéey avancé waaw léegi da nga bëgg sa li da nga am livre boo war a génnee nga bëgg ku la si jàppale ma bëgg ku ma jàppale pour jàppale bi yëpp ñaata la jàppale bi moom ah sans dépendre ndaxte kuy wut ndimbal moom ñaata exemplaire nga si bëgg si livre lu mu toll rek ndaxte kuy sàkku ndimbal moom doo taamu. nu mu toll mooy ay 500 exemplaires. waaw ndaxte bii cinq 500 exemplaires la. kon bi bu bees bi. na beneen bi beneen bi bind naa ko ba pare mais pour ñu mool ko ba mu génn comme nii moom a dese. bu dee cinq 500 exemplaires ñaata ngay fay pour loolu. ndaxte kooku waxuma woon somme bi déggoo daf ma ko defal gratuite ndax moom écrivain la comme man. waaw mais 500 exemplaires warul cher xam naa ay 500000 yooyu rek la léegi téere Mariama Gueye Sarr bi muy waay boobu nu mu tudd téere bi. boobu moom génneeguma tur bi. waa mais kon téere pareegul yow tamit. fii pare na mu ngi ne mu ngi ne ci saaj. mais amagul tur. waaw fental benn tur fii. boo nga wax ci bu amul tur mun jàpp moom. Sénégal ca kanam. bon téere Mariama Gueye Sarr mi waaye génn euh, Sénégal ca kanam la tudd léegi nag euh, sono si moom képp koo xam ne yow bëgg nga see jàpp na nga ñëw génne mille rek la. cinq cent mille francs CFA. Ah, ku may jàppale nag ma woo ci sama numéro. non yow yow lu tax mu lay woo sa numéro. ah, ah yow yaa muus. ah léegi kay doo ko doo ko bàyyi doo ko wax mu woo waa Sénégal ca kanam. <laughs> déedéet. téere bi nag kanam la tudd. waaw Sénégal ca fu mbaxana doonee benn kanam la tudd ndaxte xam nga ni eh. li tax Mariama Gueye Sarr mi bëgg ku ko dimbale eh. mooy que ne tey ji xam nga fi ma jógee yéeg ba fii waaw xam nga amuma tànk yu ma yéegee loolu wér nga wax amuma tànk kon nag bëgg naa ku ma jàppale. non dañ lay non yow kay xaaral rek léegi nga gis kenn si waa Sénégal ca kanam ñëw indi 500000 francs jox la ko su ko defee nga euh, nga nga sa téere boobu. nga génne Sénégal jëm ca kanam defee noonu. keneen def noonu keneen def. non non eh, yow tam nag yaa ngi wayaan bu yàggee nga wayaan. déedéet wayaanu ma loolu du wayaan. non loolu wa bu yàggee moom mu doon wayaan. Ah. delloo ñu ko Lamine Fall ah, Lamine Fall fële ca Atlanta Georgia keroog dama fa dem bu yëkkati harmonica. ne ma gis naa sa benn invité bu ñëwoon ne day harmonica te amul harmonica harmonica wa ngi nii jox naa ko harmonica baa ngi fii euh, Lamine di les delloo njukkal yow yow yow na nga toog rek yow toogal rek yow xaar Mariama Gueye Sall Sénégal ca kanam la téere bi tudd Sénégal kanam lay tudd bu ko tuddul moom Mariama Gueye loo gis subaa ngoon rek waa Sénégal ca kanam la <laughs> aywa Mamour looy jeexalee waaw damay wax rek d'abord ni ñi nga xam ni ñoom la yàlla denk maire yi hmm. ak yenn yenn poste de responsabilité yi vraiment ñu liggéey pour le Sénégal te bàyyi euh, caaxaan yi. bàyyi politique. bàyyi politique bi daal euh, parce que tamit daal bëgg nañ. bëgg nañ liggéey yoo xam ne daal vraiment euh, boo fa jegee ka fa ñëw du ci am luñ ciy teggee da koy continuer donc loolu lañ soxla et que ñu xam ni tam ñu bàyyi façon d'engagement yi am ci Dakar parce que yaakaar naa marchand ambulant bu ñu mooy celui qui compte sur son petit commerce pour répondre à un besoin immédiat. kooku amul jotu yéeg ci kaw centre commercial. parce que koo xam ni dafa koo xam ni. def ah, ay centre commerciaux yi donc loolu. vraiment ñu arrêté ko et puis xaalis bañ cee def am na feneen fu mu xaj. ñu arrêté loolu vraiment parce que ay ñi ngi koy def fii di ko médiatiser wala. Ah, te yooyu ay détails la marché ambulant bi koo xam ni dafay répondre à un besoin immédiat cest dire la nourriture l'ordonnance extra kooku amul jotu yi ci centres commerciaux wala du moins bu ñu ko fa dee dafa am ay ay ay ay ay mesures d'accompagnement Euh, non wante dëgg rek waaw mais mënu lay parce que marchand ambulant tey mënul ñëw feesal place xam nga commerce système la d'accord da ngay feesal place bi xool affaire bi marchandise bi dugg na bi génnaat loolu marchand ambulant mënu ko d'accord loolu daal la ñuy wax pour ñu message bu message bu leer Mamoun mm. euh, Diakhaté moom mm. moom moo jiitee marchand ambulant yi fii si marché mais nag gaañ bu ñu xeex xeex bi moom jarul ko sànni ay lacrymogène xam nga yooyu moom seen maama leen ko jàngal wax naa la ko sànq moom day door di saaga di def lépp lay def le maire actuel. Dassilem mais mais àdduna tamit gënante daf fi baax. ah mais xale yi ñoom man duma ko def en tant que responsable mais moom li mu li mu apprendre xale yi loolu la ñuy tari. waaw ah, tamit mag tamit dañ koy wekk mag léeg-léeg mën na la saaga nga bañ a fayu ndax mag la. Ah, mu dóor la nga bañ a ma jàngal de. waaw mais non yow yow yow da ngay am sa yaru bopp rek. waaw am nga mag moom. ma leen ko jàngal delloo njukkal tamit Mariama Gueye Sarr Mariama Gueye Sarr moom euh, bindukatu taalif la euh, waaye it euh, moom day xeex pour centre ba nga xam ne fële ca Bambey dañ koo defar ñi nga xam ni dañoo handicapé centre boobu ñu ubbi ko centre bi inauguré nañ ko président inauguré na ko depuis mai mois de mai 2013 waaye boobu léegi centre ba personnel baa nga fa ñu leen di fay waaye handicapé yi ñoom mënuñu faa yegg waaye it Mariama Gueye Sarr ñu ngi xaar ñu ngi xaar koo xam ni day ñëw indi 500000 francs joxo ko ngir téeréem bi muy waaj a génnee mu mu génne ko delloo njukkal sunu ay euh, technicien ñoom euh, Amadou yaate ñoom euh, Lay Saré ak waa vidéo waa son Euh, ñoom Tafa Sow waa montage ñoom euh, Omar Diop Nafi Diagne sunu maquilleuse yéen ñi nga xam ni yaa ngeen ñu bàyyi xel ci àdduna bi yëpp ñoom euh, ñoom Lamine Fall ñoom waa Atlanta yëpp dig daje ëllëg bu soobee yàlla salaam.